moom record bi et pourquoi pas nekk ci li nga xamante ne moom mooy bi. ñooñu a taxaw tamit. si xam naa ni suñu ñëwee pour man les autorités. yu nga xam dañuy dégg ni ko ñoom dañ koy rencontrer. si euh, bu nekk ci staff bi wax na que ni waaye on les a vraiment soutenus mais xam nga ni suñ demee di suñ demee di uti dara duñ démoraliser les troupes. Mm-hmm. xam naa ne ak nii nu mu demee nii su nit ñi jàpp naa ne am na yu bëri bii nii dinañ ko jéem a saafarawaat ba teg leen bonnes conditions. Euh, xaw ma lu xew ci match bi mais le pronostic. bon pour moi le Sénégal va passer. bon <laughs> euh,